ci xëtam mu njëkk bokk na ci comité suivi bi ñu taxawal ngir muy saytu opération force Covid 19 nee nañu François Ndiaye général de division moo ko jiite mooy kan l'observateur xëy nañu ci di wax dara yéen kay bi l'observateur dikk nag ñu ne ci ndimbali président Macky Sall baaxee Sénégal yi ca bitim réew nee na képp koo xamante na ji. ngee sa mbokk dafa faatu ci coronavirus bi daañu la jibal benn million ak genn wàll yéene kay bi l'observateur dikk ak ñun ci ñeenteelu doomu aadama bi faatu fii ci réew Sénégal te coronavirus faat ko góor la benn waay bu toll ci juróom benn fukkeet ak juróom-ñett Kër Masaar la dëkkoon ma nga woon fële ci hôpital Fann ñu tëree doon ko fa faj xew-xewi jamono Ndeye Mati Fall moo soore ñetti doomi jiitlem yu jigéen kenn ki sonn lool ba dañ ko mujjoon yóbbu réanimation l'observateur bind ko yëf yaa nga xewe fii ci Ndakaaru wàllu football ak Ismaïla Sarr rek euh, coow lu ñu ko maanaam wax ju ñu koy tudd mu toll ci benn milliard ak genn wàll l'observateur ndakaaru dajale na lépp luy mën a tax jàngoro ji def fi naka sudul noona libération dikk ak ñun ci senegal mi enregistré ñetteelu doomi aadamaam boo faatu fanweeri cas ak euh, juróom-ñaar yoo xam ne ci transmission communautaire it la jóge nee na covid 19 mi ngi gën di lawali bànqaasam ci réew mi aju ci mbàkke mbàkke bi nga xam ne day liggéey ca Matlabul Fawzayni ca ñu testé ko mu positive jigéen la ci coronavirus révélation yu doy waar la ci source waa xëyekoon ci xëtamu njëkk grand place ñëw ak ñun ci kàddu yu mu nangoo ci Omar Gueye mi ngi défendre Mansour Faye nee na gisul daal lu war a tax ñu nekk di euh, mbambu euh, coowal ceeb ci du quotidien force Covid 19 ak comité bi ñu taxawal nee na kii di général de division François Ndiaye moom la ñu dénk boobile euh, comité. la Sénégal dikk ak ñun ci ñaar fukki cas contamination ak juróom yu am ci eh, réew mi nee na juróom-ñaare ay cas communautaire lañu la Sénégal dikk ak ñun ci porte masque gi nga xam ne gi lu obligatoire la maanaam daal kilifa réew mi jël nañ dogal sant waa réew mi ñuy masqué wu. la Tribune dikk ak ñun ci transmission communautaire yeek ni mu mel jamono ji nee na yëf yaa ngi gën a doy waar ak di gën a yokku jaaxle Kër Massar eh, ñeenteelu doomu Sénégal bi faatu ci coronavirus fii ci réew mi foofee la dëkk. yéenekaay bi di Le Quotidien dikk ak ñun ci diggante Tuk Mbàkke transmission communautaire ba fay am mu ne lu jara bàyyi xel la ndax ñaari ñi faatu ñaar kon ñi eh, amee coronavirus bi eh, ca Mbàkke ña nga leen ko wàlle ca marché Ocass mooy ni ko journal bi bindee ci xëtam mu njëkk Vox Populi dikk ak ñun ci sol masque bi nga xam ne léegi eh, lu lu obligatoire la ci réew mi ministre intérieur moo def arrêté sax ku koy sol ci administration publique ak secteur privé bi ak commerce yeeg ci barab yi ñuy defee njënd ak njaay coordination fonds Covid force Covid 19 général François Ndiaye moom la ñu sant mu présider boobu le comité enquête ne kay Mansour Faye la xëyee moo di kaju ci jaar-jaaram li ko xamal ak li ñu ko xamaloon lu bari enquête xëy na di ñu ci wax record yéene kay wàllu football mercato nee na euh, footballkat na ñu day dem Liverpool bu fa yeggee nag gisatuñu luy téye Sadio Mané ngir mu dem Real Madrid mooy li yéene kay bi di xëy kon di laaj stade yéen kay xëy ak ñun ci Cristiano Ronaldo ku ci gën a taqe nee na Pelé Maradona Zidane ak David Beckham ñooy woote jeexale ak sunu lamb bala Gaye 2 Modou Lo Gris Bordeaux Boy Niang ñoom ñépp euh, la la kii di rëg-rëg bëgg a bëreel laaj bi di ndax rëg-rëg tolloo nag ñoom dayoo sëñ Fall Mouhamed Ndiaye xibaar yi ci gàttal ci Zik FM ñu tàmbali ko ak euh, ab centre de dépistage boo xam ne daal euh, dañu ko teg ngir daal euh, képp ku ñu njort ni am nga coronavirus ñu mën la saytu ak ñeneen ñi nga xam ne sax ñoom dañoo jàpp ni mën nañoo am ñu laale ak ku ko am te ñoom xamuñu si lu bari fële nag ca géejawaay la ñu koy tàmbali muy xeetu des test boo xam ne daal ñëpp lañu ci fas yéene àndal wala ñu defal ko ñëpp foofee ca géejawaay leneen ki nag ci benn fan lu tollook ñaari téeméeri nit ñoom testé nañ leen am na nag ab soxna boo xam ne daal moom dafa am euh, coronavirus ñu testé ko euh, mu tax waral sax ñu euh, mujj yóbbu ci quarantaine kon Berlin lu tollook ay nit ñu bari bokk na ci sax équipe médicale ndax ñoo xam ne daal dafa demoon moom seeti leen ngir xool wér-gu-yaramam ñoom it ñu téye leen ngir daal saytu seen wér-gu-yaram ñooñee di ay kër docteur waaye tamit kër yi mu euh, laale woon ak ñi mu dendaloon euh, ndax nag ndaw soosu euh, dafa doon yëngu ci wàllu ko jënd ak jaay am na nag ñu bari ñoo xam daal jaay ne leen ci lu mu yore woon Mamadou Fofana moo ñu ci gën a leeral bile centre de dépistage nag ni ki tey jii nii ci altine gi daal la waroon a ubbi ay buntam waaye yëf yi na mu doy waat jéggi dayoo nag fii nii ci diwaanu Géejawaay ak surtout cas communautaire bi nga xam te ni am nañ ko nag ni ki démb moo waral sax nag liggéey ba ñu daal di koy tàmbali si dibéer gi kilifa yi nag lu tax ñu jël boobule dogal ndaxte jàpp nañu ne ku jigéen kookee nga xam ne nag moom nañ jàpp ne dafa am boobule feebar fu mu dem dafa bëri rawatina ci nag ci benn clinique bi nga xam ne fii nii la nekk ak tamit tournal sëñ Assane nga nga xam te ni nag daanaka saa su ne nit ña dañ fay fees dell ngir moytandiku dégâts yu bëri moo waral sax ña nga xam ne ñoo doon liggéey ca kilinik ba ak njaboot yi nga xam te ni nag ñoo dëkkandoo nag soxna soosee ñoom ñëpp daal nañu metre en quarantaine bii le centre de dépistage bii nag ñu taxawal ca l'école 24 fii ci Wakhinane Nimzaat ni ki démb ba mu ubbee rek daanaka lu ëpp ñaar téeméeri nit daal xool nañ leen fa fii nii nag ci diiwaanu Géejawaay de daanaka askan wi fi dëkkee daal feebar bi nga xam te nii nag ma ngay law te nag du kenn koo xam te nii daal épargne na la moom Géejawaay Mamadou Fofana Zik FM. du Fofana ñu wax ci euh, ba léegi wàllug euh, li nga xam ni moom mooy euh, Covid 19 ak général François Ndiaye mi nga xam ne démb la ñu ko tabb ci ab décret ngir mu jiite comité de suivi opération force Covid 19 maanaam kon junni milliards yi nga xam ne nguur gi dugal na ko ci ak ay bonne volonté ak koo xam ne daal dugal nga ci sa loxo mu xool naka lañu kay koy saytoo ba nga xam ne len lu nit di ci ragal ci. ay détournement ak yu ne mel du ci am général euh, moom lu euh, François général François Ndiaye moomee nag kon euh, moom moo nekkoon kii jiite armée de terre rawatina nag doon jiite ñii di takk der yi nga xam ne dañoo demoon ca Gambie ngir jëlee fa ka nekkoon président ba nga xam ne daal dafa xoon ni moom du jóge ci bopp réew mi doonte ñàkkoon na élection yi nga xam ni ko doon amal présidence bu Sénégal nag di xam ne di comité yi nga xam ni nag général François Ndiaye dina ko jiite. Euh, kon euh, ñu bari euh, daañu ci teew bokk na ci lu soxal ku jëkk politique bi opposition bi waaye tamit ñi nekk ci bopp réew mi ak ay société civile syndicat ak ñeneen ak ñeneen ñu bari ñoo xam ne daal daanaka pàcc bu nekk am na kuñ ci jël ngir daal ñu mën a bokk ci li di liggéey bi di saytu lépp lu soxal mbirub kuréel googu nu muy doxee ñu wax nag ci loo xam ne nag tiis la boo xam ni dal nañu daanaka nag boobu ba tey ñu nekkoon ci di dafay jéego euh, muy euh, euh, néewub El Hadj Mouhamadou Ndiaye mujj na ak si fii ci Ndakaaru démb nag daanaka bi une heure du matin tegale sax ay minutes ci la ak si ci aéroport international Blaise Diagne de Diass ci ab cargo go xam ma nga jóge woon fële ca Espagne euh, jàddoon nag Turquie yooyu doog a agsi nag ba xaw xaaji euh, xaw a guddee waaye teewul niki tey ci suba incha allah euh, ci kanam tuuti bu set jotee lañ ko fas yéene jëbal sunu borom moom El Hadj Mouhamadou Ndiaye Doss fële xam ne moom mooy ca cimetière yu Diamaguène si Cap Mbao xam naa ni daañu ci dellu si incha allah ci lu gën a yaatu di ñaan suñu borom mu woyofal suuf ci kawam te àtte ko ci yërmandeem di ko jaale nag mboolem tasum xibaar waaye tamit. tamit rawatina euh, njabootam euh, gi mu fi bàyyi. oui bonjour et bonjour à tous la Gambie qui enregistre un dixième cas ministère de la santé Wuri Diallo notre Et oui, un cas confirmé, mais surtout un cas très particulier par rapport aux neuf autres cas déjà confirmés positifs au Covid-19 à ministre la Santé. En effet, Amadou Lamine Samaté sa communication pour ce qui est de ce dixième cas, probablement d'un patient pendant dont les prélèvements ont même été pourtant testés à plusieurs reprises avec à chaque fois des résultats revenus négatifs. Maintenant, sa y question de tergiverser là-dessus. Cet individu est bel et bien atteint par le très redouté Covid-19 et que surtout, il faut le noter, il ou elle va désormais rejoindre les six autres individus sous traitement, ce qui fait en tout et pour tout sept patients sur les lits de l'hôpital et qui, même moralement et sont certainement en train de prier pour sortir victorieux de leur combat trop risqué contre le coronavirus. RFM à Banjul, Ouri et puis en Mauritanie, le président Mohamed Ould Ghazouani a accordé une aide à 200 familles sénégalaises impactées par le Covid-19, un geste salué par la communauté sénégalaise de Mauritanie, son Hassan Gueye avec Mohamed Diop. Le président Ghazouani moo joxe ndigal le ministre de l'Intérieur Le président Razouani, à travers son ministre de l'Intérieur, a accordé de l'aide à 200 familles sénégalaises. Le geste est salué par l'ensemble des Sénégalais qui actuellement est difficulté de vivre. Comment trouver des revenus si l'on reste un mois sans travail C'est un calvaire. les autorités sénégalaises suñ leen ko waxee xam nañ ko suñu ko waxul xam nañ ko. les autorités sénégalaises sont au courant des difficultés de leurs compatriotes en Mauritanie. il faut qu'elles réagissent. l'urgence est là. jafe dund. te wax dëgg yàlla nag urgence bi foofu la. en tout cas nous remercions le gouvernement mauritanien par le biais de nos autorités euh, diplomatiques. autorités consulaires. mais nag Sénégal yi nekk fii. mais l'urgence c'est la souffrance des Sénégalais d'ici. jafe-jafe Sénégal yi fii